année ren bi dafa nek année bu particulière yag nañu def ay cours de vacances diko def seulement avec l'amicale des élèves étudiants d'Hann bel mais ñun dañu ñëw ñu gis ren ni ak particularité bi année bi am war nañu mëna xol benen taxaway parce que bañu ñu ci préparation examen baccalauréat yi dañu ñëw école Doudou Mbadj ñu ubbil ñu bunt yi xajal ñu ñu défé fi suñu ay préparation ba nga xamante yalla dimbalé nañu à l'examen du BFM et du baccalauréat ñom ci ay résultats yu baax a baax a baax avec un taux bu taux de réussite bu baax légui nak ñu né pourquoi pas comme dañuy dem ci cours de vacances ñu and ci def ko en collectif parce que buñ ko défé en collectif gis nañu ni dina gëna am doole mais aussi dina gëna dina gëna jaar yoon parce que bu féké ku nekk day euh, berse sa côté peut-être information mëna baña jall peut-être ni mu organisation bi mën na tandis que nous avons fait un groupe parce que nous avons des associations du quartier de Anne parce que nous, bi la confédération. fait nous def action dañuy ñëw fekk des la ci fait des ay association avec le comité de gestion de l'école El des parents de l'école. Nous, nous en tant que des élèves et étudiants nous avons la structure fêtière Euh, ci côté jàng ñu ne kon war nañu mën a ñëw ànd ak ñooñu ñu defandoo des cours de vacances mu nekk avec un collectif ñu def coordination bu dëgër suivre ko te yàlla dimbali nañu ñu ngi ciy ñu ngi ciy gis réussite bu baax parce que dañ daan yem ci classe d'examen ren yàlla dimbali nañu ñu mën a def euh, cours de vacances yoo xam ne nii ñu ngi commencé CI ba terminal donc mën nañu wax ni am nañ ci beneen beneen beneen yokkute mais aussi comme ni ñu ko defee fii loolu dafay gën a nekk après euh, avancement ci suñu doxalin et tamit yeneen perspective yuy ñëw si kanam mooy que dinañ xool nu ñuy gën a mën di yaatalee suñuy mbir. pour organisation bi parce que li tax sonn ñu ci comme wax naa la collectif la ñu demee collectif bi dañu ñëw ñu taxawal benn coordination ki ko jiite mu ngi tudd euh, le professeur Abdou Khader Gueye euh, di ko nuyu de passage ñu def une organisation bu jaar yoon suñu euh, pôle pédagogique bu amical bi ànd ci ak waa yeneen association yi ma la wax AGPH ak Jaloore ak association des parents d'élèves comité de gestion bi. ñu xool nu ñuy taxawalee benn équipe bo xamné ni day gérer organisation bi gérer suivi bi ba du am pëccëxoo ba du ba lépp daal jaar ci yoon et que non la démé mu am ñoo xamné ni ñom ñoy gérer les inscriptions ñi ñom ñoy def euh, les les les professeurs yi xamné ñom ñoy réagir dans les salles de classe ñeneen ñi ñom ñoy gérer walu supervision bi loolu motax mu gëna am mu gëna am organisation et que tamit di santat bu baax enseignants yi ak directeur école bi parce que vraiment ñom dañoo ñëw sacrifier aussi japp ci ba mu ba mu yegg si fii dal déjà pour euh, renforcer votre capacité xale mais aussi tamit fexé liñu faté won ñu euh, dëggalaatal leen ko seen bop motax ñun fi au niveau de l'école primaire li nga xamante mom lañu la ñu yor euh, xale yi dañ leen maintenir ku ci nekk sa classe par exemple ñu doon def CE1 dañ leen maintenir rat ñu defat CE1 donc reprendre programme bi mais aussi tamit permettre à aussi tamit ñu am ay euh, quelques euh, appréciations ci li nga xamantene mom moom la euh, buñ démé e classe yi koy ay enseignants lañu de formation man ma ci yor classe te yor te nekkuma enseignant de formation mais ñi ci dess ñëpp ay enseignants de formation au niveau du secondaire aussi tamit on a des enseignants yu fa aussi tamit quoi c'est pour dire qu'on a essayé vraiment de la manière la plus propre def ko ba nga xamante ne xale yi li ñu leen di jàngal dina nekk en adéquation ak ñom li nga xamante ne moom lañ soxla ak ñom li nga xamante mom moy sen programme. ouverture yi di ñëw di ci lancer appel aux parents di ci lancer appel à la communauté aux associations waaw parce que comme niñ ko xamé rek ren at bi at bu metti la donc dewen mom moy gëna moy gëna metti ci njàngu xalé yi parce que pratiquement xalé yi ñaari programme lañuy def donc euh, il faut que ñu am taxaw il faut que ñu am taxaw te il faut l'implication euh, de tous les acteurs communautaires Nous ñoo ci mën pour que enseignants yi ñu mettre dans les conditions idoines pour que ñu mën a euh, renforcer li nga xamante ne la xale yi soxla. école euh, milieu la boo xamante ni ñun ñu fi nekk temps la ñuy jox maanaam quantum li horaire ak sa planification mu ngay top dañu maître bi ak élève da ngay xëy ci 8h ou par exemple 13h euh, ñu la élève par exemple 15h ngay ñëw 17h lundi ba vendredi donc yow boo xoolee tey jii euh, l'enfant enfant tey jii heure yi muy ñëw à l' école ak heure yi muy toog kër ga remarque bi ñu def le plus souvent c'est que les enfants sont laissés en rade à la maison du am suivi li ma toujours du am suivi tey jii parent bi am suivi dëgg-dëgg ci doomam mooy parent boo xam ne dafa inscrit euh, à l'école privée parce que là il se dit que sama xaalis la fi dugal donc comme que sama xaalis la fi dugal donc fo jaar mu am suivi à la maison donc à l'école élémentaire lolu mooy suñu malheur malheureusement lolu moy malheur bi nak suivi toujours mooy des kër ga ma li may ñaax parents yi toujours euh, nañ jàppale xale yi surtout nañ jappalé xalé yi euh c'est pas parce que élémentaire la nek amul leen lu may fay xam nga euh, donc xalé bi ñu gisee kër ga mooy loolu non non non il faut xalé bi tam ñuy tek ci mom pression bo xamanteni à l'école comme euh, comme à la maison

kon loolu yakarna suma djumul ma jumul loolu c'est une somme maudite du somme bo xamni dafa dafa consistante pour jàppale parents yi ak aussi xamnañ ni ñom ñëpp bëgg nañ seen doom jang ci dynamique bobu dal la nek motax mais privatiser wuñ ko mais dañ ko def juste pour ñun dépenser ni def fii ak ay nangam ak enseignants yi ni déplacer ñu mën leen ci am lu ñu ci jox ay paas wala ay nangam loolu dal mo gëna nek nekk bi mais objectif bi mom du wut xaalis pour le corps professoral danaka bo dee xol surtout ci cycle moyen secondaire bi ñi fi jàngale ñëpp ci quartier bi leen dëkk fi leen loger mais ci cycle moyen primaire bi lan am ñaari enseignants yo xamné dañuy quitter ay zone comme fu démé ni Guédiawaye monsieur Boy di ñëw di dispenser ay cours mais bu dé ñi nekk fi mom ñuy intervenir ci cycle moyen secondaire bi yépp ce sont des habitants du quartier ñom ñoy ñëw diñu ci jappalé ñom ñëpp ci association yi leen bokk ñëw am na ñu ci nekk des professeurs yo xamné ne dañoo certifié c'est-à-dire nous avons déjà ngi ci enseignement déjà dans le secteur public Nous na aussi ils interviennent dans des écoles privées Nous avons ñooñu des ñu ci résultats mais jàppal ma jàpp daal que c'est fantastique vraiment normalement wax euh, normalement je vois que c'est extraordinaire le travail vraiment pour nous retrouver comme mën suis vraiment école pendant plus de cinq mois si je me trompe pas euh, suñu nous lii wax pour nous retrouver pour ñu mën a